Mané ngi noonu waay la ilaha illallah tey dakase doomu ndeyu bay ma njoon sama jigéen a ngi noonu Mané mooy borom caaru ji baaxe na baaxe baay ey mati féeri bi njaay mati féeri bi xale yam mati féeri bi ey mati féeri dëkk féeri bi damay Adam Sarr dëkk féeri bi Fatou Malick sa yaay dëkk féeri bi Penda Joro Sarr ñëw loo sa maam na Adam dëkk féeri bi waa Gambie dañoo baax waa Gambie dañoo bëri ey dëkk féeri bi yam moom bee bi kay naa yaayu ay jigéen dëkk féeri aji roqee yaa baax dëkk féeri bi yam waa Gambie yéen waa Gambie jógal yëngu bin kamba dara soma base naa la fay naa la sama jigéenu bopp bi dëgg la loolu la yàlla def waaw Papa nag bu ñu waxee suul ker xam nga émission bi Papa génn na ci télé def na émission ba tàyyi macha allah yàlla na gën a yokku mm-hmm. du ñu fi toog naan ko Papa Ndiaye fan nga jugee fan nga jaar ndax loolu waxoon nañ ko bu yàgg li ñu bëgg def tey nag mooy dugg ci waxtaan bi ci wàllu musique ci wàllu li nga xam ne moom moo di carrière tey jii Papa bokk nga ci ñi nga xamante ne taasu ba mu démarré am na benn bët boo xam ne dañ ko doon gisee te booba sax dañoo xuusul bu baax ndax bu ñuy wax Sénégal dañ naan ki njëkk a taasu góor la yow fexe nga ba ñu dindi loo xam ne dañ ko daan wax ci góor ñi nga xam ne dañoo dugg ci taasu muy génération bu am solo nga ànd ci sa touche nag mu nekk loo xam ne ñëpp ko apprécier boo ne Papa ñu ne amul noonu ñëpp ko bëgg ma bëgg ñu tàccu bu baax li nga xam ne àndi na ko ci taasu léegi nag Papa li ma la bëgg a laaj euh, Sénégal de plus en plus tey li ñuy waxtaanee dañu naan. Euh, dañuy faral di gis comme góor ñiy fecc ak taasu bi ak yu demee noonu dañu naan euh, est-ce que lii du participer ci li nga xam ne moom moo di éducation xale ndax artiste bu demee ba nekk artiste dafa am euh, loo xam ne mooy rôle bi ngeen di jouer muy ay message yuy lancé est-ce que taasu bi ban influence la mën a am ci li nga xam ne moom moo di xale yi ak ñi nga xam ne dañuy wax naan ah taasu bi day yàq gone yi wax yi ñu ciy wax ak góor ñiy fecc léegi léegi góor ñee dàq fecc jigéen ñi sax lan nga ciy wax Pape ba nga nuyoo ba pare. waaw jërëjëf Kebs euh, maa ngi profité ci occasion ci invitation bi di la gërëm di gërëm public bi nga xam ne ñoo ñëw teew ak ñi nga xam ne ñooy seetaan émission bi loolu li ma ci tontu mooy li li woykat ba waxoon ne lépp loo gis waaye di ko def di ca di ca torox nit tedd na ca amul benn métier boo xam ne di nga ko gis ci àdduna mu bon nañ koy defee rek moo koy salteel mais ku ci nekk xam na ne taasu kenn mënu ko génne ci maanaam culture Sénégal kër mag ñi sax bu njëkk ba kër sëriñ si dañu am maanaam ñoo xam ne ñoo leen daan waxal ñu ci mel ni bëri na ci ku ci mel ni ay sëriñ Moussa Ka ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñooñu maanaam dañ doon taalif taasu boo koy xool sax taalif la ñu ànd la ko ay sabar kon yaakaar naa ne na ko suñ mag ñi doon defee ba tax kër goo dem kër diine goo dem wala kër goo fi fonk rek mu am géwél ci biir kër ga ñooñu bu ñu royee seeni tànk yaakaar naa ne taasu ak maanaam fecc ndax man ne nag am pecc moom kenn du ko tere sénégalais ndax bu liir liir bi moom bu juddoo ba commencé xàmme rek day dem fii moom senegal moom ñëpp ay dem xanaa da ngay tëju di dem wala nga am foo dugg rek dem moom ci suñu deret la ne. ñëppay dem ñëppay dem. waaye demin yi wutee waaye dem moom dañoo bind ci dem dañuy dem rek waaw waaw mu nekk euh, loo xam ne lu am solo la comme ni nga ko waxee tey euh, maa ngi ah. jégalu tey man xam naa ne du yàq ci du yàq ci éducation xale yi dara ndax boo xoolee texte yi nga xam ne ñun moom la ñuy véhiculer ci ci ci suñuy suñuy su ci suñuy way ah. da nga ciy gis am njàngale ndax boo xoolee sax son bi nga xam ne moom lañ mujjee génne nii muy takk ci rip dem naa ci ba ne la booy jaay laalo laalo sax takk ci rip booy jaay naana mbaa nëtatu ak ndambe takk ci rip kon amul benn métier boo xam ne bon na fecc mi nga xam ne ñun moom la ñuy fecc am na ñoo xam ne dañuy da ngay gis fecc kat bu ne bërët nga gis koo xam ne dafa amoon problème këram nga soulager ko ci ci fecckat ba wëndeelu bu mu wëndeelu wala wala mu mu mu mu tarxiis nga ne ewaay eh Samba mu soulager la kooku mënoo ko fay ndax boo demoon tey hôpital boo feebaree mun nañ laa mun nañ laa bindal ne kii da ngeen koy dem da ngeen koy pikiir wala kii da ngeen koy sampili biteel waaye am na ci problème yoo xam ne boo ci tolloo xam nga kan moo la mën a gifloo artiste kese moo moo xam muy woykat bi moo xam muy fecckat bi mooy xam muy tëggkat bi yooyu yëpp day saafara ñun dañoo ñun dañoo yor suñu médicament waaw te kuñ jàkkaarloo nga xam ne mën nañ laa faj. looloo wóor ñu tàcc ko Papa wax na ci lu am solo ñu ñëwaat ci euh, beneen euh, fànn Papa Ndiaye. Euh, tey ji nag baxa bi rafet na bi mooy baxa meew. waa bii waaw dégg naa fi nga génn moo fa jaar toj na fi ñu tàccu ko bu baax. tàccu le ma Abi Ndour moo solo. <laughs> léegi nag Papa Ndiaye bu ñu ñëwaatee ci li nga xam ne moom moo di wàllu carrière euh, ñu gis ni également da ngay def ay mix yoo xam ne dangay ngay dëggal liñ naan musique amul frontière ndax euh, bu ñu xoolaatee nëgë ni daaw la rek ñëw nga ci reggae daal di koy jël boole ko changé way yi def lépp Euh, kan moo am maam Amerika nga ni. yow am nga maam Amerika <laughs> Kebs am ah? ñu fi toog ñëpp ku ci nekk am nga maam Amerika ñu gis stillu musique yi nga xamante ne mu mel ne Papa euh, bu ma jógee ci boobu ren tamit ñu gis loo nga def loo xam ne dafay cartonné. Mm. muy featuring bu Akon def ak ki nga xam ne mooy P Square nga jëlaat ko muy cop ni mais Papa Ndiaye dañuy xool ndax musique bu ñu ne amul frontière day tontu ay normes ndax fii la ñu war a jaar ndax bu ñu gisee nga jël euh, ñaari abdu yi laa doon wax. tey jii ma ñetteel leen loolu suñu Papa Ndiaga Mbaye moo ko waxoon. yàlla na yàlla euh, seral ay yaxam. Mm. dafa dafa soriyaantoo ndax da ngay dëggal li ñuy wax ne musique amul frontière wala. da nga naka ngay inspiré woo parce que am na ñuy gis naan fi mu jógee ak fii ñaar yooyu waruñu koo mën a boole ndax dafa sori. ku xamul ku xamul aar moo koy wax ku xamul musique moo koy wax moo ngi mel ni nga ne man damaa bëgg a damaa bëgg a ñëw cosaan ñu ne la cosaan day bu tey boo fa doon ñëw mënoo ko jaar fu dul séedoo kooku xam-xamam foofu la yem waaye bu la neexee jaar Colobane jënd fa banaana jënd fa orange soog a yegg si cosaan bu la neexee jaaree ko ñaay cokkeer te du tee nga ñëw cosaan bu la neexee nga wëlbati ko ba almady jënd fa laa yaa xam loo bëgg a jënd te du tee nga ñëw cosaan kon moom moo tax ñu ne musique amul frontière te musique dëgg musique dëgg da war a am ouvertire di voyager di voyager ci biir sound bi yenn saa nga bàyyi gars yi ñu nekk fi ñu nekk yow nga dem Congo doxantu fa fekkaat leen fa nu ne loolu la ah. mais fekk fekk demoo ba am indépendance boobu dese na la ndax ci biir biir public bi nga bi nga bi nga bi nga bi jàkkaar lool di nga ci gis xeet bu ne te xeet bu nekk war nga ko mën a fekk ca fa mu ne ca fa muy déggee nga woy ko boole ko ci ci ci ci ambiance bi doo ko bàyyi mu wéet boor yi mu loolu tax ngay gis yenn saa fecckat yi xam nga mun na ñëw rek ne rasa ci sa dab sa ki sa bax ural na xar mais duñ def loolu dañuy voyager ci li ñuy fecc dañuy voyager dañ naan tal kit kii sa da dabra dabra kii sa da bax tàccu leen kit kii sa kit kii sa xam nga fii mënoon nañ fa taxaw mënoon nañu taxaw fii waaye dañuy voyager yenn saa ñu ne ni xoolal jàpp ne da mu mel ne ouverture bi ñu doon wax Papa Ndiaye euh, faram fàcceel nañu ko toj ko ndax itam ni nga ko waxee rek boo jógee fële ne da ngay dem cosaan mën ngaa seet yoon bu ne nga jaar fa waaye du la teree yegg ci cosaan mu mel ne polyvalence ngay wax te polyvalence dafa am solo te baax lool ci lépp lu waaye def fu ñu la dugal rek nga dem mais inspiration bi fi muy jógee Papa Ndiaye booy toogee war a mën a xalaat jël mixé reggae ak leneen nga boole ko waaye loolu sax mën naa war a mën naa mën a ne yaa ngi koy def mu neex waaye nga fexe ba kàddu yu méngoo xoolal ñetti abdu yi bu njaga mbay euh, nga ñëw daal di ci boole bële te dafa neex daal te fexe nga ba mu ànd loolu nu muy nu muy demee noonu Kebs loolu maa maa maa ngi ci sant euh, maa ngi profité ci occasion bi di sant maanaam mag ñi nga xam ne ci ñoom lañ jot a jaar booy xool dama koy faral di wax ci ay émission yu bëree bëri bëri lu mel ni ay njagambay yooyu dañoo fekk seen jamono tëggandook ñoom ak ay ñeneen ñi nga ay tëggkat yoo xam ne mag yu mag yoo xam ne jugee nañ fi ñu ànd ak ñoom ci seen génération naan ci ay teen yu bëri yaa ngi dégg loolu dina la may ouverture boo xam ne maanaam musique moom gisatuma maanaam loo xam ne war na la ci mën a jaaxal saa su ne yow da ngay dem ba yow aar ngay doon yow aar ngay doon yow musique ngay doon. Eh, tàcc leen lii waaye yow ci sa bopp aar nga. <laughs> moo feeñ moo feeñ ci li nga xam ne moom moom lañ sañse xam nga yow ku la xoolal xoolal kepp si fi mu génn fii toogut ah. fii yaayee fi jaar yaay. yaay design sama jigéen ba. waaw waaw li mu def rafet na. kooku sama jigéen la moom tamit maa ngi profité ci occasion bi di ko gërëm sama xarit la. yaay yi li mu def rafet na trop. ndax ñi toog ci télé bi di seetaan dañoo bëgg a gis lu rafet te xam nga ne lii ku ko xool boo soxorul xam ne rafet na. dëgg la ah leen ma suma jigéen. <laughs> Pape. waaw. Euh, waxtaan bi am na solo. Mhm. léegi nag li ma bëggoon mooy ñu wax ba tey est-ce que yow am nga autorisation pour way reprendre dégg naa nga ne ekkoon sa nijaay la. yaa am foo ko waxee sama nijaay la nag. tey dama laa nara a bett tey bagage yi ma la dencal fii di la ko indil te xamoo li lay xaar yëpp. mais ay kon sama nijaay la. waaw ndax ñun ku ci nekk ñun ñii ñëpp ay ay jarbaatu ay kon lan ndax suñ maam yi nekk america <laughs> am déet. dëgg mu wëlbati ko ay kon mm-hmm. def loo xam ne. Mm-hmm. képp koo xam ne maanaam doomu sénégalais nga war nga ko puukare woo bu fekk ne bëgg nga lu baax. dëgg la ndax États-Unis dafa nekk dëkk boo xam ne jafe na maanaam nit ku ñuul dugg fa am fa ndam. nga dem sénégalais. waaw surtout nga ni nga dem sénégalais nga xam ne sénégalais yi teguñu leen noonu fenn. mu dugg fa danga xam ne képp ku nekk États-Unis bëgg ngaa def ak moom morso. kooku maanaam bu defee loo xam ne ñëpp koy puukare woo yow mi nga xam ne yéen a bokk xeet bokk dëkk. war nga wane ne carrément lii man ci laa bokk war nga ko caakaayoo war nga cee bége boo ci mënee def son def ci son boo ci mënee fecc fecc ci. looloo waral ma jël morso bi tëggaat ko woy ko te moom bi mu ko déggee kontaan na ci. bu baax a baax. dëgg la loolu Idrissa Diop moo ma ko yeggee. Mhm. Idrissa Diop moo. fekk ma père Idi mhm. fekk ma nekk Paris ñuy déggante bu ne ma ay kon day jégoog naag moom waaye woy wi ni mu ci kontaanee parce que ndaanaan la ndaanaan. saa yu ah? dafa bëgg Sénégal dafa bëgg Sénégal. te ndaanaan saa déggee lu neex daf koy daaneel day kontaan kon ay kon c'est mon na leer tey <laughs> waa Papa lan mooy coppet coppet nekk na lu ndaw lu ñuy coppati rek waaw te ute naa ak yow lool macha allah. Mhm. ci wàllu talent ci lépp mhm. euh, coppet bi pour lan la da ne woon coppet ne ko ci pëy lu tax lan mooy coppet waaw maanaam xam nga am na loo xam ne danga koy coppati ndax dangay bañ mu gaaw a jeex xam nga boo yore sa cuuraay lu neex da ngay coppati rek te gis nga saa yu coppatee boo boo sottee ci ànd bi mu ubale rab boo demee boo demee ci cin la bëgg koo xorom doo doo doo ngëb boo ngëbee da ngay yàq ci cin li da ngay coppati sotti. mu neex mu mu mu mu cin la neex booy boo boo toggee sax ba pare waaye xam nga ne doo dugal sa loxo yëpp da ngay ñam da ngay coppati nga nii am déet kon man sama tur bi saa su ne yi di ko def coppat ñoom ñëpp ma war a fay droit d'auteur ñuy ñuy coppati cuuraay yéeg ñuy coppati ci ci ci ci ci xorom yeeg yéen ñëpp amel nañ ma droit d'auteur bañ ma war a fay. dëgg <laughs> Papa Ndiaye. Mm. laataa ngay dem di def euh, deuxième partie bi waxtaan bi neex na. Mm. Papa Ndiaye nag jabaram mooy Awa Ndiaye. Mm. way na ko sax ba yuuxu ko ci biir cop maa bi yuuxu way neex sax Awa Ndiaye macha allah la noir de Awa Ndiaye nag dafa mënoon a fecc lool. waaye ba ko Papa Ndiaye coppe takkee ba léegi da koo jël rek dëxëñ ko kenn gisatu ko fenn. dugal ko. dama koy jàngal fecc dama koy jàngal fecc. ma waaw Pape da koo tere pecc mi lu tax. ah da nga koo tere pecc mi. non dañoo am ay clé ñuy répété te it moo koggul quoi. non mi ngi bëgg a yàgg nag. ah ngi bëgg a yàgg ba nga ko takkee ba tey gisatuñ ko. non parce dafa am da daan naay xam nga dafa am feeling moom. noir de da daan mm. taxaw dem ñu ngi fàttaliku clip yi ñu daan teg. mais bi takkee ba léegi da nga ko jëlee teg ko ne. waa ñu ci aar dafa am dama am contrat États-Unis <laughs> te clé yi ñu war a def il faut que moom Awa Ndiaye soxla fan yi mu dégraissé wu parce que ñu war dem États-Unis si loolu lañ nekk di liggéey buñ paree rek dañuy génn tas Sénégal. Ah. ndax war nañoo def maak moom son. déedéet kay xam maak Awa Ndiaye suñu kër naka la ñuy sëyee. waaw ndax ump na gaa yi nag. ah. yi def yi ku ci nekk. yaa ngi taxaw sa jëkkër ngeen def fi single ma noppi rek waaye bu ma ñëwee maak Awa Ndiaye ah. Pape Awa day way wala day taasu. non loolu loolu ay faible du ma ko waxee. surprise. oui ma quand même. Pape question bi la daw. non. ma waaw awa daal da koo nëbb. non nëbbuma ko. damaa xam ne bu bu bu ñëwee mu neex. ah du dëgg. bu bu bu ma ñëwee. ak moom. fekk ma miin miin samay feem ma miin ay feemam. bu nu dajee dina waay oh. waa Pape. dañuy jàll ci deuxième partie bi laataa ñu eggali waxtaan bi du ma ne deuxième partie sax ndax tey duñ fi jël sax di classifier naan lii la ñuy def ak lii la ñuy def dañuy def émission naturellement rek. naturellement ñu bégal ñëpp yow xam nga yow heure bu ma dajeeg yow day neex. waaw ndax loolu moom Sénégal gépp wax nañ ko Pape Ndiaye ak Kebs Thiam moom dafay neex. dafa longtemps nag. ça fait longtemps loolu sa longue de cim tubaab ba nu mu ko ti woon. ba pare ma wëlbati ko génn nag sama fans ñi nga xam ne saay lu lu ma xew la ñu ñëw. ñëw jàkkaarloog man te xoolal gars yi dañuy jéem a sérieux sérieux lu nii waaye dàll yeeg yëpp dañ koy weq bu ci kanamee. ba ci kanam gars yi waaye xoolal eh waaye na neex fii ñoo ko moom. waaw waaw <laughs> aywa ñu tàcc bu baax Papa dem nag daal di àggali ba pare dellu siwaat fii ñu waxtaan fii dafa nar a toj tey. morso bii nag maa ngi koy may ku képp ku bëgg sa yaay damaa bëgg képp ku dama bëgg morso bi ñun ñëpp képp ku ci bëgg yaayam nga jóg taxaw. du tee saa yoo bëggee noppalu nga wàccaat ci saisi toog waaye damaa bëgg mu bañ a nekk affaire u sérieux affaire yoon nañ leen fecc mu neex on on est ensemble c'est nous dans nous acca Mama sur le moto Mama ko jom yaay ji waaw yaay ji ma suma naree daw de yaay ji ma yaay ji ma yaay ji ma suma naree daw de ñoo bokk jom fanta fanta woy naa la woy naa leen woy naa leen woy naa leen ramatulaay baax na maa ngi lay bëgg yaay ji ma laay lay la la soo waaw sama yaay booyoo maa ngi lay gërëm yaa ngi waaw waaw waaw Fanta woy naa leen jóg leen jóg leen non jóg leen leen waay jóg leen waay musal ci ñu géey nuy yaa ma doy ayu yaay kii sa doom la deex deex may kumba jeje raas buur Muhammad da la tàccul ma Ndeye Gueye bu baax a baax a baax sama jigéen la bu ma xewlee nii lay def saa su ne booy xool sama kaset yu bari ci tele bi danga koy gis. dëgg la lu ma xewle day ñëw. dëgg la xaar sax ma woo ko. dëgg loolu ab jàpp bu yàgg la. mu ànd ak dégg lool. toj na saal bi macha allah. yaakaar naa ne tey ñëpp kontaan nañ ci Ndeye Gueye tàccuwaat leen ma ko bu baax a baax a baax. te yaakaar naa ne. sama goro tamit mu ci ginnaaw dina ñëw ci kanam. tey dama indi ay surprise yu bëri duma wax tey affaire bi xoolal waaye tey li man waaye amul seral tey tey tey ngeen kontaan. tey amul seral Papa Ndiaye kon ñu enchaîner rek. waaw damaa bëgg. damaa bëgg a summeeku ci kanam tey damaa tey ñetti sol laay sol dama. <laughs> ñaar rek baax na. tey képp sa noonu xale yi xale yi jigéen def bu ñu bu ñu xewlee nan lay def ah dañuy tey damay jàkkaarloo xale yi. tey amul seral. tey dinaa sol solu sax indien indien. indien aywa Papa Ndiaye. saal bi xumb na lool te neex te ñiy toog di seetaan tamit xam naa ne am nañ ci mbëgte gars yi kontaan nañ waaw kontaan nañ bu baax te nee nañ la woon tey suul ker bu amul fenn te yaakaar naa ne yaa ngi ci yoon bi te sax egg nga ca ndax ñii ñëpp d'accord nañoo man ne Papa Ndiaye toj na fi li ñuy def nag mooy comme nee nga da simmeeku da ngay dem daal di ñëwaat ñu daal di mën a tëj nag def deuxième partie bi mu jeex waa ju tàcc ko bu baax day sama àndandoo bi ma wóolu neex sell te noppale dana ma jox cafka bi gën ci sama bépp xeetu toog fekk si ma ci Adja moom mi ëmb lépp luy safal togg ajaa ci ajaa ci ajaa ci man sorusi ajaa ci man ajaa suul mer lañu wax nee naa leen dafa am koo xam ne senegal namoon na ko lool muy ku talentueux mën la muy def di artiste di ndaanaan dama bëgg loxo yi jib ñu tàcc ki nga xam ne mooy Papa Ndiaye mu dugg si moom nag am lu doy waar loo xam ne def na ko Sénégal namoon ko àdduna namoon ko Pape na nga def. siyaare bëggee. from from London. yeah. Pape nuyu nañ la. mais fii la ëppee. gëj laa gis. mais namm la. fii la ëppee. maa lox loolu. waa ma ne. ci looy yëngu yi. xanaa dem bitim réew rek yaatal ko gis yeneen seeti ay bagaas ndax nag xam nga sa patron Youssou dafa xàll yoon bi jàngal nañu lu bari yenn saa yi bu tëggee ba senegal kii mu daal di am na mu def. dëgg ñu topp ci ginnaawam rek moom daa wane yoon bi ñu topp ci ginnaawam rek di tegu ci yoon bi. loxo waay. xalanes yaa ngi tax dama ko waay suur kee bu tura gaay ko dee mi ne defal mi soxlu mbër moom nga gën muy bëri daan ngay ree fas fas la doomu fas fas la waaye bu ñu la fas fasu naaru góor a tax mbax sa fas sa bilaay suur kee bu tura gaay ko dee yaa ma seeral waay soxlu mbër la nga suba kon Papa Ndiaye à l'instant nee naa leen en attendant Papa Ndiaye coppet di dellu siwaat am na tam beneen talent ndax nee naa leen dañoo bëgg tey stress du fi am koo xam ne nag comédien la ñu ngi koy wax Beydi Ndiaye moom ñu bëri ràññee nañ ko ci télé bi waaye tey dafa am loo xam ne ñëwaale na ko ci wàllu taasu mu ànd ak benn xale bu doy waar ma bëgg ñu tàccu Beydi Ndiaye comédien naanaan bu saf xorom mu agsi laa illa eh yow lay def yi nga ne. ni nga ma gisee bàyyi ko noonu. laa ilaaha illallah yow émission suulkar bii du pour yow yow nag ba nga ñu yeetalee ba ñu nelaw nga yolleeku ndànk ñëw fii yow leena. mooy bëgg a wax ni Sénégal leena Abi Gana mooy dama wax ak yéen Youssou jàmm. li sëñ Tuuba ak Seera Faal ñu nday bay ñoo ko ñu bokk nday ak bay yar ko tu sën bu ci yoonu la bay wopp ci rut bi jëm gaa ku kenn du ko baram sën ba mi nees na ko baram ni ñu nekk ci na sëñ ci bu wopp na ab ganaay di taxawaalu dafa ki di gone sa morom abi daan nay sa maam taxul nga bëgg maa yëpp sa maam ma njëkk a morom yow nag nga dem xew di fa woy ba dajeeg les pédophiles wax ci pédophiles xamoon naa di ma yëngal fu ñu dem nga yëngal ma léegi nag indi nga ma fii nga xam ne mooy suul ker yow nag dinañ wax ak yow ndax ameen nga nit ñi am. am nga ñag fuut nag ñaari bi di ñëw natt la sob jañaa ngay woyal jaani fa nekk xala ma fa aku ginaar kenn kaay xam mal ma ko. Eh, kaay xam mal ñu ko. Cheikh si Thiam Taaxam Mbal moo ko. Massa Massa eh, Massa Massa doy na doy na doy na. Kebs. yal na la yàlla fay yal na la yàlla jàppale addunaa ngi sa kanam TFM raw na te dootul dellu ginnaaw mukk labbali fas taxu dafa sa raw ku la séntu ci ginnaaw moo ca xale des yéen a ngi ca kanam télé dafay am programme te yéen am ngeen programme gars yi nañ tëj seen làmmiñ.